bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma bikum min ni'matin fa min allah mbokki jullit yi maa ngi leen nuyu baax seen mbokk la Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye fii ci daarul arqam bu cana bu sekk di magi donga yi ci daara ji féeteel fi mboolem jullit ñi ci jàppalante ak donga yi ak ñi ñu ko bokkal di liggéey eh, barab bi ñu leen féeteel nag yàlla dafa dogal eh, noo ngi fii dund yoo xamante ni bëgg nañ ko bokk ak suñuy mbokk jullit mën naa am kenn ku nekk rek bu ci génnee xalaatam def ci man manam lépp daal di daal di daal hmm. na ni euh, daara ji am na ab boo xam ne mi ko doon utilisé di ko jëfandikoo bi mu ubbeeg léegi hmm. yàlla dafa dogal ni at yii ñu nekk ñetti at yi wees am nañ jafe ci poste bu baax a baax a baax jafe-jafe bu ñu jural weer wu nekk daanaka dinañ de ñett yoon yoo xamante ne bu ci nekk la muy jël Euh, jigéen na cent mille francs loolu nag euh, ñu bëggal ko solution solution bi nag euh, sunu ay mbokk ci daara ji ñoo xam ne yàlla dogal ñu ngi ñu féetee ca biti seeni doom nekk ci biir daara ji am nañ ci pexe bëgg a defaat fii beneen poste boo xam ne niñ koy liggéeyee dana jàppandi jàppandi koo xamante ne incha allah dootuñu amati problème mu ngacc poste boobu nag bi ñu ko nattee gis nañ ni lu mu néew néew mën naa jël un million ak travaux yi nekk ci daara jeeg yenn yi ñu bëgg a mottali dëgg yàlla pexe yi bokk kook mbokk jullit rek lañu lanu lañu am ba tax na noo ngi woo mbokk jullit yëpp ci liggéeyu daara ji poos bi nga xam ne bëgg nañ koo yaatal ngir jafe-jafe bi dong yi daan am ci ñaari fan yu nekk si poos bi fees ñuy xaaru oto léeg-léeg ñu tëbal bisub sangu ngir oto bi ñëw nga ci poos bi ñu mën a jëfandikoowaat ngir jafe-jafe boobu deñ pexe yooyu nag lañ noonu nañ ko bokk ak yéen kon daal daara ji dafa soxla lu mu new néew un boo xamante ne dina ko liggéeyewaat ak poos boo xamante ne dina lijjanti jafe-jafe ba nga xam daal jàng koy dund nu koy bokk ak mbokk jullit yépp ndax liggéey bi ñoo ko bokk képp koo xamante ni def na ci dara wala mu am ci xalaat yu ñu ci mën a defee dara yàlla na yàlla fay ko yu àdduna ak alaxira asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa